waaw donc asalaamaaleykum wa rahmatullah di ñëwaat di leen ziyaare ci samedi bi di leen jox seen wàccuwaay donc xam naa vidéo bi moom dañuy fexe mu gàtt au maximum pour ngeen mën a jariñoo information yi comme ni mu waree waaw boo leen xoolee t-shirt bi ma sol dafa ne victime de l'ops at gmail.com ok encore du vidéo bi du parce que c'est destiné à des informations très précises nous bëgg information informations qui ko am tamit mu jàllale ko te kep ko xam victime ak lépp lo xam ne bi non la la email bi nga ko utiliser pour envoyer les informations nécessaires donc nous avons un avocat au niveau national et international pour poursuivre l'obs manam l'observateur euh, ma bok ci seeni ay victimes ak sos yi nga xamne ne lañuy def pour yak doomu adama yi comme niñ ko defé won ba jël bakkanu ki nga xamne ne moy Imam Ndaw donc dañu fas tul tok ci réew mi rek di bayyi ay journaux di dox di yak ay doomu adama pour seeni ay intérêt personnel donc motax ñu jël initiative bi ñuy ñaan sénégalais yépp nag fu waay mën a nekk te ngay victime L'Obs bindaloon la ay sos nga am article bi nga am journal bi mën nga ñu ko yónnee ndax dañ koy boole ci plainte bi donc victime de L'Obs boo leen ko xoolee at gmail point com boobu mooy pour l'observateur rek donc fexe leen lépp loo leen man pour concentrer wu ci loolu ndax sama gars yi yenn saa yi da ngeen di euh, xawar a pajo ah képp ku am information ci l'Obs l'Obs rek l'observateur kese Bi email ngay yónnee l'observateur l'Obs qu'est-ce ok bu yonne yónnee fi mbiru boulen yonne bu leen mbiru Tange Tandian bu yonne yónnee fii mbiru Leral TV bu yonne yónnee fi mbiru keneen l'observateur rek parce que email bi dafa connecter directement avec avocat

motax may préciser mu wala Cheikh Yérim sek wala Maïmouna Ndour képp ko xamne mercenaire mercenaires yàq nañu sa adina dugal nañ la ci guuta indil nañ la ay problème wala tëjlu nañ la bobu fi ngay dem victime des mercenaires at gmail.com bo len ko xolé mi ngi fi dugal na email yi yëpp ci titre live bi donc tay live bi pour lolu rek la donc bi mercenaires yi bu dee mercenaires yi ku mel ni Mati Trois Pommes parce que plainte yi day am Europe day am Amérique day am Sénégal day am maanaam Europe Amérique ak Sénégal fépp foo xam ne ñoom dañ fay nekk plainte yi daf fay am donc les avocats sont déjà engagés yéen doo leen fay avocat doo leen def dara loolu suñu liggéey la ñun léegi yéen li ma soxla rek mooy collectifu victimes yi parce que man xam naa ci yu bari te jébbal naa ko avocat yi waaye xam nga li ñuy ne tungu ne du teew nataal boroom ci boppam bu yónnee information yi da koy gën dooleel man xam naa yu bari loolu dugal naa leen ci plainte bi mooy victime des mercenaires at gmail com comme Tange Tandian wala ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñooñu képp ko xam ne am nga dara loo xam ne def nañ la ko ay ñaawteef ba ci Françoise Hélène mi nekk fii ci Amérique mercenaires yi nga xam ne te ba ci ñoom Kouramaki ak ñeneen ñu def la ay ñaawteef on a des plaintes contre eux donc mën nga ko def fii victime des mercenaires yooyu yëpp dugal ko ci ok léegi bii parrainage léegi bii mooy makki Sall képp ku sentir ne victime mu Macky Sall nga les victimes de Macky Sall boobu tamit les victimes de Macky Sall at Sall la at gmail point com voilà moo tax may sol t-shirt yi nii pour di ko fàttali email bangitie, ci no justice no peace donc lepp loo man pour yónnee information yi day tax rek avocat yi meuna continuer ci sen dossier yi ci numu mu gënee gaaw voilà xaaruñu xaaratuñu dara toogatuñu xaar kenn parce que il faut ngeen comprendre ne aussi nguur gi manul def lepp nguur gi sen loxo dafa fess amnañu ay préoccupation dinañu poursuivre poursuite ñu wara def manam justice bi mi koy def waaye du tee ñun en tant que ay citoyen sénégalais ku mel ni Macky Sall dañ koy pour poursuivre fii ci Amérique maanaam dañ koy def lu tudd sous sous mooy lan mooy poursuivre ko pour ñu nangu ay bien am fay ñi nga xam ne ñoom la euh, gàllankoor ak ñoom la lor ci Sénégal donc ku ci bind information bi xamal ne man nga cey jariñu parce que avocat yi tay buñu poursuivre on Macky Sall ci ay milliards té mom lañu ñu donc avocat yi dinañu fexé képp ko xamné toroxal na la li ci sa waréf ñu jox lako té Macky Sall dafa am ay biens Amérique donc dañ koy poursuivre fi criminellement ak civil manam dañuy def poursuite criminelle ak poursuite civil civil moylan lan moy damage yi ñu la def moy comme ni ma ko continuer wax rek dina continuer servir lentil ci qui ne ko mané inshallah donc li encore une fois les victimes de l'obs l'observateur kep ko xamne ne la wala wala sa journaliste bi sax mu mais dinañu poursuivre l'observateur donc email baa ni même chose jox nañ len email bo pour les victimes de Macky Sall email bi mi titre jox Len aussi de même titre les victimes des mercenaires Vous tamit email bi donc euh, comme niñ koy dit, ñu ngi dit, di bu voilà bien américain et euh, marocain et sénégalais d'accord euh, comme donc encore une fois pour nous poursuivre ñi nga lor lor rey ñu rey suñuy njaboot toroxal ñu toroxal suñuy njaboot ndax man mii tey l'observateur amul lu bon luñ ma bindalul ginnaaw bi ma fi Macky Sall accusé terroriste ak yeneen donc képp ku am ñaawteef boo xam ne l'observateur bindal na la ko ngir yàlla ak yonent bi yónnee leen ko ci email bi bu leen ma ko whatsapp ah whatsapp bi fees na donc duma mën a suivre dala ci whatsapp bi email bi directement ci avocat yi lay dem donc fexe leen lépp loo leen man xana kula la fayal avocat nak nga mën yonnel sa bop email kenn fayloowu wulen dara tout est payé do len fay dara do len def dara yéen sen liguey rek moy ngeen yonne email ci les victimes de l'observateur de l'ops benen bi les victimes de Macky Sall benen bi les victimes des mercenaires yeb bind naa ko ci titre live bi donc kep ku jot live bi dagg leen ko dougal ko ci whatsapp bi partager leen ko mais fexe rek seulement sur les emails ku munul email demal ci sa dom sa jarbat sa xarit mu lako mais s'il vous plaît bu len ko yónnee ci whatsapp bi parce que so len ko yónnee ci whatsapp bi amana avocat yi duñ ci jot te man damay son wax deug yalla munuma jël lepp ci sama whatsapp bi di transférer donc encore une fois mangi ngi le di ñaan lepp lo len lépp loo leen man rek incha allah rabbi yéen ñëpp ngeen ñëw pour mercenaires yi képp kuy mercenaire boo leen xam moo xam ñaawteef la la def moo xam yi la la def moo xam dafa jël sa tur di ko yàq di jël sa der di ko yàq donc jël leen ko ngeen yónnee ko ci email bi incha allah bii encore képp koo xam ne l'observateur yàq na sa àddina toroxal na sa njaboot toroxal na sa famille fenal na la bindal na la lo xamné ne ak yoon donc c'est votre moment maintenant parce que fi mu ne justice amna Sénégal inshallah allahu rabbi dinañ len porter plainte Fofu, comme niñ len di porter plainte en Europe comme niñ koy défé fi ci Amérique mais email bi la avocat yi am donc fexé len yónnee seen information yëpp ci email bi bu len mako ko ci WhatsApp bi voilà ku mënul email woowal sa dom wala nga wo sa xarit wala nga wo sa kenn ku nekk ci ñun xam na ku mën a yónnee email incha allahu rabbi bind naa email yi yëpp mi ngi foofu ci biir ci kaw email yooyu tamit nag boo demee ci par exemple emailu L'Obs yónnee ci loo xam ne L'Obs la concerné boo demee ci emailu Macky Sall ngay victime mu Macky Sall def ci loo xam ne Macky Sall rek la conserné boo demee aussi ci emailu mercenaires yi ñu mel ni ñoom Mati trois Pomak ñoom Tange Tandian def nañ fi yàqute yu bari ñoom baa jaxate ak ñeneen donc yemal foofu demal ci email boobu nga bind fa turu boroom nga yónnee li nga xam ne moom la la defal diffamation bi nag dinañ leen ko toppee te dinañ leen toppee crime euh, crime internet comprendre nga donc lépp lu waay man rek da ko ci bind da ngay bind ne diw lii la ma def nga indil ñu capture d'écran bi amal capture d'écran bi wala bu dee journal la bu ñu bind nga indi journal bi wala bu dee whatsapp la bu la nit ki def dugal fa whatsapp bi bu dee nag audio la boo xam ne da nga ko jot parce que ñoom yenn saa ñu menacé waate wala yenn yenn yi bu dee audio nga am defe naa boobu da koy def voice note pour nga man koo yónnee ci li nga xam ne moom mooy email bi waaye maa ngi leen di ñaanaat encore une fois lépp loo leen di yónnee rek na nekk ci email bi maa ngi leen di sant di leen gërëm live bi ci loolu rek la woon xam nañu ne nag euh, dëkk bi bari na ay préoccupation ba fi ñun ci suñu Amérique euh, ndax ñu ngi ci suñu ay tab euh, yenn situation yi way yoy yëpp dinañ ci ñëw bu yalla euh dès que le temps sera approprié pour le faire mais tay lepp pour information jox ak ak yelef doomu adama yi ci ñaawte fi nga xamne mom lañ leen def inshallah allah Cheikh Mbacke gajaga aussi bu leen ko ci fàtte ak ñom ñu bare bare bare bari nañu les mercenaires ñi fi nekkoon ci temps wu Macky Sall di def ñaawte parce que loolu boo leen ñu di dimbalee bu ñu demee Europe dañ leen di jàpp dañ leen di defal mandat d'arrêt international ci Interpol bu ñu demee Europe dinañ leen jàpp te bu ñu dinañ leen jàpp donc vraiment <laughs> waaw waaw loolu loolu duñ ko fàtte incha allahu rabbi ndax dañuy dox rek ci li nga xam ne moom mooy doon yoon c'est pas personnel nag buguma ken jëlee ko mbiru personnel c'est pas personnel wa yoon mo wara def te comprendre len ne muy loi ak muy amnistie ak sen affaireu u yoy lolo yëpp ça n'a rien à voir ak ñun plainte yi def voilà ñom Mamadou Massali ñoñu yëpp mercenaire dal képp kuy mercenaire mu wax la lu ñaaw wala mu def la lu ñaaw wala mu def la lo xam dang ko ci bëgg top man nga ko ci emailu voilà les victimes des mercenaires Qu'est-ce l'observateur spécialement l'ops parce que moi, journal bi y a dangereux au Sénégal def na la ñaawteef bobu tamit yónnee ko victime de l'Obs mi ngi nii bi victime de Macky Sall donc yónnee leen ma email yi inshallah, rabbi bu après inshallah, on fera tout ce que nous euh, pourrons euh, amna parle en français et soninké voilà, donc je vais seulement le euh, réitérer en français. Je vais seulement le dire en français, peut-être en petits mots. Donc, on a décidé de faire des plaintes contre des personnes. Par exemple, ça, c'est les victimes de l'OPS. Toute personne qui a été victime de l'OPS, le journal, l'observateur, tu peux envoyer euh, ce que l'OPS t'a fait de mal dans ce email. Si par exemple c'est une publication ou, autre, tu peux le faire ici. Voilà, tu peux envoyer les informations ici. De même manière, si tu es victime de Macky Sall, donc aussi tu peux l'envoyer sur l'email les victimes de Macky Sall. C'est bien écrit au-dessus du live. Si tu es aussi le victime, un victime des mercenaires, tu peux aussi l'envoyer chez euh, l'autre email qui dit les victimes des mercenaires. Donc tous les trois emails sont là et vous pouvez les prendre. Mais j'accepte seulement des emails. S'il vous plaît, il ne faut pas m'envoyer les informations sur WhatsApp. Ouais, j'ai écrit, j'ai écrit l'email sur l'écran. C'est en haut, c'est le titre du live. Le titre du live, il y a tous les trois emails. Donc faites tout ce que vous pouvez pour nous envoyer les informations nécessaires parce que ces emails sont directement connectés avec les avocats. Les avocats ont des accès directs à ces emails. Voilà. Les victimes de Macky Sall at gmail.com. Les victimes de l'Ops gmail.com. Les victimes des mercenaires, gmail.com. Cette fois-ci, différent des autres euh, euh, situations, vous avez une justice qui sera à votre disposition. Donc, je vous remercie de votre aimable attention et bonne journée. Well, I don't, uh, I'll say it in English, so we'll make it short because we also have brothers and sisters that can only speak English. These are uh, decisions we have taken to uh, sue and, and uh, ma make reports on Macky Sall and his uh, mercenaries. Now, if, per instance, you have l'observateur have done something wrong to you, this is the email where you can send us your complaint. This email is directly connected to the lawyers. Once they get the information, it will be prospect, eh, it will be processed the right way. The same way as we done it for Makisal. If you are a victim of Makisal, there is an email, the victim of Makisal. You go ahead and send the email there, inshallah, Rabbi. We will make sure that the email is followed up by the lawyers. At the same, the same way, if you are a victim of the mercenaries, what we call the mercenaires de plume et du micro, you can also send the email on that email and inshallah Rabbi, the, lawyers, the lawyers will get it. And we will do everything we can to follow up and to do to follow those plans, inshallah Rabbi, to make sure that justice have been done for you for, for the Senegalese people. So I thank you very much for your attention. voilà donc gars yi ñu ngi leen di sant sama mbokk soninke bi mu ne ma wax ko ci soninke voilà donc euh, maren coninko hagata ku email nu ɓen wari kondu bowoɗa kona haɗa gane oɗo oga ɗugu taw golli nan ta haɗa ne wona killi kurumbaña kamma sasa oɗa ngutu loya loyanu ko sigiran ni mania ona here suña hohogan insha allah rabbi plenty nu gana ha kamaha manam ke gani ka hagan kawa barni kani kata katake email yai gelli Macky sal ga gana hobure nyanganga ken kawa email nuku nokondi gelli l'observateur ya gana nyanganga l'observateur email nyani kay email nuku susa hantenga e ke live kamma kasura yuto kana e mede matay euh munuma ko won baña wax ci sosse ndax xamna ne Macky sal victimum yu bari c'est de la Casamance donc en euh mbadi call mbal konton na ngal be konton nga momo konton a toto nga ana ana eh, afen uh, wala a jamo lafta men folale bi wolem nga plentol le dada nga o plentol mun dada nge dada contre l'observateur ani Macky Sall ani les les les mercenaires donc ni momo ye toñi ni momo ye toña ni momo ye toñindiro keyla toñaro mu ya ko ita ita tunola je laftale aliye preuve volta aliye ki ñing email ni l'observateur long aliya ki jang ni Macky Sall long afanan na email obe santo ni mercenaire long afanan na email obe santo bari alkana message ol ning ki whatsapp parce que naliya ki whatsapp parfois mbe difficulté sotolale pour ta whatsapp o no ka ki email email ñing a abe connecting avocat la directement donc ni a mario email o kidron inchallah rabbi mbe fere ke la le information ñi yetambi donc mbal ala bake voilà donc gars yi mu ne wax ko ci pël <laughs> voilà mi ɗo salmina on euh, mi yawno tan par ce que mbiɗen anndi euh, men men ngarat noon e, e yimɓe woɓɓe kono jooni Ah, koɓe mbaɗi men men udditiɗo email ji ɗin ko fi hoɗum ko ɓe yimɓe toñoɓe par exemple hande si a yi l' ko kanko men mbindi ɗo kala mo l' fenani waɗi ko boni addunama boni hen waɗu feere ko wawɗa fof nolda men email e o email ɗo o ko email l' observateur mbaɗi on email kadi e makisal no dow ɗo nden maɗi ɗum kadi e mercenaire iji ma ba jahateɓe ma moustapha jahateɓe ma makki trois pomme ma ma françoise hélène ɓe ma euh, ma tange tandian ɓe fof ganden tan kala ko mbawɗen mbinden ɗe email ji ɗo léegi nag am na kuy laaj foofu séeréer non non non da ngeen koy yónnee président moom mu traduire leen ko ci séeréer séeréer moom dégguma ko comme yàlla may nañu président séeréer moom nañuy ñuy ñaan rek président bi di président bi sax du waxtaan ci séeréer yéen ngeen bëgg man ma jël mbir mi wax ko ci séeréer sonn naa nag sëñ bi fi mu ne nii moom lakk yi ma fi jota lakk defe naa képp ku ko dégg incha allahu rabbi dina ko mën a partage ak ñeneen gars yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax wa salaamualeykum wa rahmatullah wa